sëriñ Cheikh Coro Mbacke sëriñ Cheikh Coro Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1867 ci dëkk bii waajuróom nekkoon nag di poroxaan ci dëkk boobu nag di poroxaan nag la feeñe jamono di doomu soxna Coro Jóob ak maam Mor Anta Sali Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro Mbacke nag am na nag ñu mu bokkal nag rakkam ja sëriñ Balla Coro Mbacke ibnu maam Anta Sali Mbacke ibnu soxna Coro Jóob soxna Xadi Mbacke bintu maam bintu soxna Coro Jóob bintu soxna Mor Anta Sali Mbacke ak moom Serigne Cheikh Coro Mbacke ibnu Soxna Coro Diop ibnu Maam Mor Anta Sali Mbacke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñeent waaye am na ñeneen nag ñoom bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor waajuroom wii nag di na Coro Diop laata muy ñëw nag ci Maam Mor Anta Sali Mbacke ci ku ñuy wax nag mbul Yaasin Joor Siga Faal nag ci la demoon ba tax na nag moom mbul cëy Yaasin Joor Siga Faal mi nag am nañ ak njaboota sëriñ mbul te yaasin joor siga faal sëriñ lat seen faal ibnu soxna coro jóob ibnu sëriñ mbul te yaasin joor siga faal te yaasin faal ibnu soxna coro jóob ibnu sëriñ mbul te yaasin joor siga faal ñetti tim nag la bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor ngir xamale leen nag njaboot ji nag mu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor nag ñoom ñooy ñan soxna debbo faal doomam nag mooy ibrahima faal debbo lat seen faal doomam nag mooy sëriñ moodu faal sëriñ moodu faal mi itam nag sëriñ tuuba cheikhul xadim nag moo ko woon sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Mbàkke Buso itam nag seexaloon na ko mu toogaloon ko itam nag bi nag di kuur ci suuf si nag di Kajoor mooy sëriñ mu laay faal kuur ci Yaasin Faal moo nekkoon itam nag dëkk bi nag di Bambey bi mu fi bàyyi nag yàggul moom soxna Coro Jóob mii nag ngir xamale leen nag moom nag moom mooy kan doomu buur bii nag la di Tase Jóob Tase Jóob nag doomu Yàdde Jóob la Yàdde Jóob nii nag moo meññ itam nag Lat Joor waajuru soxna Coro Jóob di Tase Jóob moog Lat Joor ay doomi bàyyi lañ ndax Tase ak Lat Joor nag ñoo bokk nag Yàdde Jóob Jóob Lat Joor itam nag mu juróon soxna Cooro Jóob mii ginnaaw bu mu jógee nag ci Yaasin Joor si ko faal mii jébbaloon ko nag Maam Anta Sali Mbàkke na bi mu ñëwee nag ci Maam Mor Anta Sali Mbàkke la fa amoon itam nag njaboot ji nag ñu leen tuddal Maam Mor Anta Sali Mbàkke itam nag mi meññ Sëriñ Cheikh Cooro Mbàkke doomu Maam Balla Aysa Mbàkke Maam Balla Aysa Mbàkke itam nag doomu Maam la Maam Mor Sali Mbàkke mi meññ nag Sëriñ Cheikh Cooro Mbàkke moo meññ itam nag Cheikhul Xadima ñi mu bokkal nag soxna Cooro Jóob ak Maam Anta Sali Abdoulaye Mbacke nag ñoom ñooy ñaan sëriñ Balla Coro Mbacke ci mag ñi toppoon sëriñ Touba Seexul Xadim la Seexul Xadim itam nag moo ko defal léppam moo ko yabaloon itam nag mu dem Mbar Mbacke moo ko joxoon itam nag chef du village yu Njaareem Seexul Xadim itam nag doon na ko xamal ne mboolem lu Maam Mor Anta Sali Mbacke meññi maag yow rek ñoo fii bàyyi koo Njaareem nag ñibbi Touba doomu ndayam ji nag di soxna Xadim Mbacke moom soxna Coro Jóob ak Maam Anta Sali Mbacke sëriñ Mbacke Bousso nag lañ ko jébbaloon ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Bousso mi nekkoon taawub sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Moulay Bousso sëriñ Assane Bousso soxna Faati Bousso soxna Roqayatu Bousso doomu ndayam ji nag di soxna Kumba Tayba Mbacke bi mu matee dem kër Chérif Moulay Nasir Aydara nag lañ ko joxoon mook mu Moulay Nasir Aydara itam nag am nañ ak njabooto ñu mën cee ràññee soxna Seynabu Aydara soxna Aminta Aydara soxna Seynabu Aydara mii nag lañ jébbaloon sëriñ Baara mu am ci sëriñ Abdul Karim Mbacke ak nag ay rakkam baneen doomam bi nag di soxna Aminta Aydara lañ jébbaloon sëriñ Moodu Cheikh Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro Mbacke ak moom nag sëriñ Cheikh coro Mbacke mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom Mamor Anta Sali Mbacke itam nag moo ko jàngal alxuraanul karim xam-xam itam nag waajuróom itam Mamor Anta Sali Mbacke itam nag moo ko ko jàngal ginnaaw bi nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag moo eggale am njàngam moo tax nag soo delloo nag ci mbindum sëriñ Mouhamadou Diop Dagana ci téeréem bi nag di Irwaawu Nabi ma ngi cay wax ne na ñaari doomi Mamor Anta Sali Mbacke yi muy sëriñ Afiya Mbacke ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke seen waajuroo nag maam Mor Anta Sali Mbacke moo bu waajuram làqoo nag maam Mor Anta Sali Mbacke mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim wéyalitu nag am njàngam ba nekkoon na ku géejoo géejoo géeju nag ci wàllum njàng nguur gi fi newoon ci colonial yi defoon nañ koy tim nag ab xaadi dëkk bii nag di Louga ci Louga nag la wéy ba ni sëriñ Touba Cheikhul Khadim jógee nag ci géej gi bi sëriñ Touba Cheikhul ba ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di Louga laataa muy dem nag Sanosi ti fan yooyu nag Cheikhul Khadim nag am Louga kër Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag la nekkoon moo tax itam nag soo delloo sax ci mbindum Serigne Moussa Ka mi ngi wax ne Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag moo dalaloon magam Cheikhul Khadim nag ci Louga ginnaaw nag bu fa Cheikhul Khadim nag bàyyi ko dem bëri jàmm siisee jàmm Sanosi nag woore fa nag weeru koor gi ginnaaw bi nag la fi Cheikhul Khadim bàyyi ko nag dem gànnaar bi Cheikhul Khadim nag di dem gànnaar Serigne Cheikh Thioro itam nag mi ngi wii itam nag nekk Louga nekk fa itam nag ab xaadi Louga nag la wiy nekk ba ci atum 1909 Serigne Touba Cheikhul Khadim daf koo jox ndigal mu dem nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej laataa muy dem Ndar Géej sax ci dëkk boobu nag di lugaloo bi Serigne Touba Cheikhul Khadim nekkee nag ci réew mi nag di gànnaar te njaboot gi nag bëggoon Cheikhul Khadim nag dellusiwaat ci nag ci réew mi relation am nag biñ doon dox nag ci diggante tubaab bi ngir itam na loolu ñu bëgg nag mën a am biñ demee nag ba tubaab bi nag di leen ko nangul da leen doon laaj nag kan moo mën a garanti nag mbir mi ndax nag ma mën a Cheikh Coro nag moo nekkoon nag ci diggante bi ngir firndeel ne nag bi sëriñ Touba Seexul Xadim nekkee nag ci réew moomu nag di gànnaar ba njaboot gi bëgg nag mu dir si waat nag ci réew mii nag di Sénégal ci lettre garanti nag biñ bindoon jagleel ko nag gouverneur général ngir mu mën a bàyyi waat sëriñ Touba Seexul Xadim nag mu réew mi sëriñ Corom Mbàkke nag mii rakkam moo garante woon nag mbir mi moo ta nag soo delloo nag ci lettre bi ñu bindoon ngir adressé ko nag gouverneur général na bu Mauritanie lettre bi nag ñu ngi ko bind dëkk bu ñuy wax nag Sowelma ci bisu juróom benn fan ci moom mi bind lettre bi nag di ki ñuy wax nag Tévério mi jiite na commandant de cercle nag bu Trésor mi nga moom mi nga xam ne nii ñun ñoo ko téye na ko a ko ji mu nekk nag te maa ngi lay fàttali tam na nga bàyyi ko mu delluwaat nag réew mi ku yaru la ku téye la waaye tam nag ku bari doole la bu Saverio maa ko bind ci le 6 mars 1904 lettre bi nag archivé nañ ko ci dossier bi ñu jagleel Bamba ci mois de mars 1904 numéro bi nag mooy numéro 2 ñu teewlu nag lettre jaarante nag Sëriñ Cheikh Thioro Mbacké Diakhou ci 1904 ngir magam nag Sëriñ Tuubaa Cheikhoul Khadim jógee ci réew moomu nag ñu mën a delluwaat nag Actuellement, le 6 août 1907, le commandant du cercle du Trarza à Monsieur le commissaire du gouvernement général en Mauritanie. J'ai l'honneur de vous rendre compte que le chef Ahmadou Bamba, en résidence obligatoire actuellement, demande l'autorisation de rentrer au Sénégal. La conduite de ce marabout influent ne donne lieu à aucune observation de nature à faire ajourner ce projet. Au cas où monsieur le gouverneur du Sénégal croirait devoir prendre cette mesure de clémence en faveur d'Ahmadou Bamba, la famille de ce dernier, représentée par Cheikh Thioro, cadi supérieur de Louga, offrirait à l'autorité toutes les garanties qui lui seraient demandées. signé Devereux archive du Sénégal dossier Bamba mars 1907 dossier numéro 2 loolu mooy garanteb lettre nag bi mu defoon ngir Serigne Touba Cheikhoul Khadim nag mën a jóge gànnaar dellusiwaat nag ci réew mi loolu itam nag bokk na itam nag ci sababu li tax nag Cheikhoul Khadim ñu yóbbu ko nag ci dëkk bi nag di cëyeen booba itam nag Serigne Cheikh Thioro nag mi ngi Louga mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Louga ba ci atum 1909 ci 1909 nag la ko Cheikhoul Khadim nag woolu cëyeen bi mu ñëwee a ne damaa bëgg nag nga jóge Louga dem nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej loolu moo waral nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke jóge nag Louga loo ngir dem nag Ndar Géej ci ndigal loo xam ne nag magam sëriñ Touba Cheikhoul fa bi mu demee ndar géej nag fekki woon na fa nag ay magi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim nag yu fa nekkoon ñu mënoon caa ràññee nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina Cheikh Samba Jaara Mbay ak ñeneen ak ñeneen bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di ndar géej Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina moo ko mayoon nag kër mu nekk fa wala moo ko joxoon nag addiya kër mu nekk fa kër ga nag mi ngi woon nag ci quartier bii nag di sunoone ci rii bii ñu tuddee nag Maajoor Siise waaye kër googu nag dafa mujj gént ginnaaw nag bu fi sëriñ Cheikh Thioro nag bàyyi ko amaatoon na nag ndar moo nekk ci mercury bii ñu tudde nag maître Babacar Seye ci kër gi sax nag la génnee àdduna doomam ji mu tudde woon soxna Indu Mbàkke moo fa féete woon mu wéy nag nekk nag ndar nekkiti mag ku jaxasoog Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul ndax Cheikh Ibrahima Fall nag tudde woon na ko doom Cheikh Ibrahima Fall itam nag joxaatoon na ko suuf itam nag ci Ndakaaru ci fi ñu tudde nag la mitnaasa ci wetu nag palais de la république bi waaye suuf soo itam nag mujj na ko ñàkk mu wéy nag des ndar nag ba ne mu génnee àdduna ci atum 1924 muy génn àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndar taxawaloon na fa nag daaree alxuraanul karim di jàng nag ak di jàngale mu nekkoon itam nag ku am xam-xam waa ndar itam nag nawoon ku boroom xam-xam yu baree baree bari nag nawoon dëkk boobu nag di ndar daaree alxuraan jam fa taxawaloon itam ci ñam fa jàngal nag ñu woon cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Diop Gora sëriñ Masamba Jéeri Jeng sëriñ Buya Miqdaat Sekk ak ñeneen ak ñeneen ak njabootu boppam itam nag moo leen jàngal ci daara jooju mu yoroon mu wiitim nag des ndar ci ndigal loo xam ne nii nag magam sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag moo ko ko joxoon wiitim nag di jàng ka jàngale waaye wiitim nag di def nag lépp loo xam ne nii nag am na ko mu yit ko nag magam nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag ci njaareem lépp loo xam ne nii itam nag day sagal yoonu murit itam nag ma nga ca ànd ak magi murit nga xam ne nii nag ñoom ñoo nekk Xadim nag ci dëkk boobu nag di Ndar mu nekkit nag ku bëgg magam sëriñ Touba Cheikhul Xadim soo delloo nag ci xasida gi sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag way magam sëriñ Touba Cheikhul Xadim ci tagg nag yi koy tagg mi wax na nag soo bëggee xam nag ki may waxal mu ne texe nag ñeel na nag képp koo xam ne nag dangaa joge nag ci Cheikhul Xadim soo jógee ci moom nag suñ boroom nag far sa mbooleem nag ay bakkaar moom mi may wax nag mooy sangub sëriñ si képp nag say bakaar ki muy waxal nag ba tey nag mooy ki nga xam ne nag soo ñëwee ci moom loo taq-taq nag dana la fóot nag ba nga set wicc dana la defar itam nag banga nga kawe mu jox la nag ay maqaama nag ba nga sell kooku nag mooy ki nga xam nii nag bari waa na koo xam nii nag daa waroon a alku mu mujj ko nag xettali ki mi junj nag mooy sëriñu sëriñ si képp ku daw làqu ci moom nag ma xam ne nag mucc nga ki may wax nag bi muy ñëw jamono dafa fekkoon nag jamono nag lëndëm crise nag mu feeñ jamono nag ci lëndëmaayu jamono jooju jamono ji nag leer nag ba mel ne nag weeru badar weeru badar nag moo dëppoog nag guddi fukki fan ak juróom ki may wax nag saa boo ñëwee ci moom ak jamono joo man di ñëw ci moom nag soo indee njàqare sa njàqare soos nag dana faju ki may wax nag ba tey nag saa boo riiree nag ba ñëw ci moom dana la defal nag ay ngëneel nag ak i xéewal ba boo loo nag xam ne nag ki la gindi mat na gindi kooku itam nag ku ragal yàlla la koo xam ne nii itam nag musta def nag benn bàkkaar la ki may wax nag mooy ku ka ki nga xam ne nii nag atabam itam nag dañ ko doon méngale mooy xiin woo xam ne nii nag day taw Thiora Mbacke way Serigne Touba Cheikhul Khadim ci xasida nag gum ko jagleel ngir duñu wax nag melokaanu magam nag ak jikkoy nag magam ñu teewlu nag li ci Serigne Cheikh Thiora Mbacke way jagleel ko nag Cheikhul Khadim tuuba fa tuuba li insaanin laha xaraja maxu dunubi liman saada suyu xaraja wa daaka mislu allazi aswad min danasim li tuuli ahdin bima in lilbadii waja wa ruba shanin min altahlaaki anqadahu cheikhu almasaayiqi fihi baada ma walaja والدهر كان ظلاما قبله وأتى بدرا سرى بعدما ليل الظلام سجى والناس جاءوا ومن أنواره اقتبسوا من كل ما بلد حتى غدوا سرجا ذاك الذي من أتاه الدهر ذا كرب أو ذا مفاقر نال الوفر والفرجا ذاك الذي من أتى للجهل مغترفا أنجاه وهو تقي ما جنى حرجا ذاك الجواد الذي يحكي نوائله yowma alcataa'i gamaaman yaxdifu lajaja daaka almurabbi alladi man kaana yaxdimuhu liwajhi xaaliqihi yowma alqiyaama naja daaka alladi man ataa yowman bi maskanihi xayru almasaakini tuuba min dadin xaraja daaka alladi fi jamiici annaasi sawwadahu rabbi wazaana bihi alayaamu walxijaja daaka ixtafa almuqtafa xatta kaannahuma lawla annubuwatu daa thawbaanin qad nusija wallahi lawlaahu maata annaasu kulluhum ala tariqati iblis alladi samaja wa huwa alladi kullu waqtin fi cibaadati man habaahu jahran bi fatxin kulla marta tataja wa huwa alladi addiina lilmacbuudi axlasahu fa sudadan fi jamii jiili qad falaja wa huwa assalimu min alaafaati jumlatiha وما نفاقا بما إيمانه مزجا وهو الذي دأبه إكرام من نزلوا wala yuwaajahu illa wa huwa qad bahaja fallaahu karramahu fiina wa qaddamahu wa daama badran muniran nuuruhu balaja bijaahi sayidina wa aalihi alkurama murdi aduwihim law ma ataa wa faja alayhim summa alayhim ma sara azka salaamin ila arwaxihim xalaja mu nekkoon itam nag bind ba tax nag bi magam nag maam Moor Jaara nag génnee àdduna ci atum 1921 rakkam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke defal na ko nag am marsiya soo delloo nag ci marsiya bi sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag defal magam nag maam Moor Jaara mi ngi xamal nag ci biir way yi dañu wax nag ñàkk nañ nag géej goo xam ne nii moom lañuy ñuy wooye nag maam Jaara géej la goo xam ne nii na géej la nag gu yaatu géej la goo xam ne nii tam nag géej la nag gu kawe gu kawe nag mboolem nag géej yi mu jàppe ko nag géeju xam-xam mi ngi wax ne nag laataa ñuy ñàkk nag Mamor Jaara ñàkkoon nañ nag ki leen taxoon a nekk nag di Mamor Anta Sali Mbàkke waaye nekkin nag fi Mamor Jaara nag nekkoon tax na nag seen waajuroo nag musuñu koo xalaat ndax Mamor Jaara mun a ñàkk gi ñàkk Mamor Jaara nag liñ koy dalalee daal am xel mooy ki ñuy wax nag Ahmed mi fi nekk Ahmed nag du kenn nag ku dul Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bu dul woon ak jant boobu duñ mas a fàtte nag maam moor jaara seeni xol itam nag du mas a miis nag maam moor jaara nee na nag ginnaaw seexul xadim nag mooy jant bi nag te bi nag mooy leeral xanaa nag ñu miisee ko nag maam moor jaara nag mi ñu ñàkk mu ne ba tey nag maam moor jaara nag ngir ñoom ñu mën koo fàtte weeru badar nag la ko jàppe woon muy guddik fukki fan ak juróom waaye nag nee na itam nag jant bi fenk waaye jant bi fi nekk nag moo nëpp nag leeraayu weer wi ba tax na nag ñu mën a fàtte nag seen mag jooju nag nekkoon seen waajur di maam moor jaara lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Cheikh Thioro Mbacke wax nag ci magam maam Mor Jaara nag ba mu fi bàyyi ko di ko jooy nag jooyu xool boole koog nag di ko xalaat nag saa su ne ñu teewlu nag li sëriñ seex coro Mbacke nag bindoon ci ginnaaw nag bu magam nag maam Mor Jaara nag làqoo mu jagleel ko nag am marché faqad na cheikha mamar jaara baxran mumiddan bil ula kull al buxuuri faqad naa qablu waalidana walakin nasinaahu bihi kasra al xuyuuri walaw la chamsu ma nasina ufula قبل شيقي بدرا للبدور ولشيخين آل هم نجوم سريا منهم أبر البرور فرضوان على الأحياء منهم وموتاهم من الرب الغفور ولا زال السماء سماء للبرايا وغيرهم الأراضي للمصير mu nekk nag ku jaxasoog maam Cheikh El Hadji Malick Sy ndax xam-xam bi mu amoon nag ak mbokk nag guñ bokkoo ba tax nañ tim nag maam Cheikh El Hadji Malick Sy moog sëriñ Cheikh Thioro itam nag daanañ dundalante diggante ab sang nag akub jaamam sëriñ Abdul Aziz Serigne Sida Ba na ne nag Serigne Cheikh Thioro Mbacke joxoon na nag am manto maam Cheikh El Hadji Malick Sy manto boobu itam nag bi fi maam El Hadji Malick Sy ko Serigne Babacar Sy nag mi ko njëkk a wuutu nag moo ko doon noonu loolu itam nag tax na bi Cheikh El Hadji Malick nag génnee àdduna nag ci atum 1921 Serigne Cheikh Thioro itam defal na ko am marsiya dañu wax nag nitug yàlla kooku nag moom mooy kan soo delloo nag ca waya ma wax ne nag ponk nag bu am solo ci wàllu diine nag màbb na ci at mii nag ñu nekk diine itam nag mbaar ma nag jën ya ko taaw wenn jën wa nag fàqee na ca mu ne alaaji maalik nag mujj na dem àjjana fekki nag boroomam mu ne bis bii nga xam ne na ci la maam alaaji maalik nag génn àdduna jantu ngëneel na muuru na tey jii mu ne nag bu fekkoon na itam nag guddi la ñu ne weeru ngëneel itam nag muuru na mu ne nag jamono nag dafa mujj nag lëndëm kiriisa ndax jóge nag gu fi alaaji maalik nag jóge mu ne nag faatug maam alaaji maalik dafa mel na daal suñ boroom nag dafee yëkkatee na xam-xam mu ne géejug jaamoo suñ boroom ak nag nu bërëb bi nag man di toll ñi ngi metti lu nag génnuk àdduna nag maam alaaji Malick Sy ku daa jàngale nag ay fànni xam-xam nag yu bare bare bari nag te wuutee tey jii nag ginnaaw nag buñ ko ñàkkee ñëpp nag nag yëg nañ ko lu yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Cheikh Thioro defaloon nag ay way ginnaaw nag bu fi maam alaaji Malick nag bàyyi ko ci ab marché nag ñu teewlu ko tahaddama rukni diini fii masasin huna wa saara ila jannaati rabbi maliku laqad kusifat samsul fadaili yowmahu kama xusifa al aqmaaru wa dahru haaliku laqad rafaca allahu alculuuma bi mawtihi wa gaara bihaara aljuudi anna almanaasiku wa assa zamaanan mustaqiman mudarrisan afaadiina cilmi llahi والكل حالك أبو بكر مرجا ثباته على منهجيه في الأصل إذ هو ماسك وأحمد المنصور يتلو كبيره وعبد العزيز الشبل من بعد سالك كذاك حبيب الله در جماله عليهم رضا الله له من يشارك عليهم من المولى هواطل رحمة وبارك في الليالي باق mu nekkit nag ku jaxasoog nag yoonu murit nekkit nag mbokkum sëriñ bi tudde na sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim doom tudde na maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom tudde na rakkam sëriñ Balla Coro Mbàkke doom mu nekkoon nag ku jaxasoog sëriñ Mbàkke Buso bi mu génnee àdduna ci atum vingt 1924 sëriñ Mbàkke Buso nag moo ko jullee faboon nañ rakkam itam nag jëm bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen dénkoon ko nag sëriñ Mbàkke Buso na ngir mu dëkkoo ko muy soxna Xadi Mbàkke ku jaxasoo woon ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriidiina bi mu demee Ndar ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Cheikh Ibrahima Fall nag moo ko joxoon kër nag gu mu dëkkee Cheikh Ibrahima mu itam nag tudde woon na ko doom mu nekk nag ku jaxasoo ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag muy doomam ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul faboon na doomam ju ñuy wax nag soxna Indu Mbàkke jébbaloon ko Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ba tax na sax moom meññ sëriñ Amar Fall Mbàkke nag bu Baara Mbàkke itam nag tudde woon na ko doom ndax sëriñ Cheikh Coro moom sëriñ Baara nag mi ngi fi woon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag mii doomam Ibnu na ko doom magam na ko doom rakkam sëriñ Cheikh Absa Mbàkke mii doomu Maam Mor Anta Sali Mbàkke itam nag na ko soo delloo nag ci wayi sëriñ Moussa Ka ci way nag yëm doon way doomu baayu sëriñ bi te fa muy tudde nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moo ko rakkam sëriñ Balla Coro nag la boole di sàkku itam nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Cheikh Cheikhul Xadim ci darajey sëriñ Balla Coro ak sëriñ Cheikh Coro daraa ngay àdduna nag ak ju àllaaxira jurub dog nag ba mukk ñaari jëmm yooyu nag rakk jiñ doon nag ci Cheikhul Xadim ay xutbu lañ ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka wax Mbàkke maa ngi lay ñaan ci barkeb sëñ Cheikh Coro ak àllaaxira ndax yooyu muy sëriñ Coro ak sëriñ Bamba nag moom moo tax wax nag buñ daw nag biro ba tey itam nag mi ngi wax ne sëriñ Balla Coro nag mi ngi mbar Mbàkke nekk fa sëriñ Seex Coro nag ma nga tëdd Ndar Géej ñu teewlu nag mbindum sëriñ Moussa Ka yaari rakki Bamba ya Balla Coro ak Seex Coro Seex Bamba tax daawuñu daw waxi biro Seex Balla Coro sancoon Mbàkkeek Mbar ak jaaxal Seex Coro nga des Ndar masoŋ ya daa di koy taaxal sëriñ Seex Coro Mbàkke nag bi matee jël soxna ñu boole ko soxna suñuy wax nag soxna Ngóone Faal moom meññ sax ab taawam nag bu ñuy wax nag sëriñ Moodu Seex Mbàkke soxna muy ku ñuy wax nag soxna Kumba Faal di doomu nag yëlli njëbét faal mook soxna Kumba Faal itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Bintu Mbàkke ak ku ñuy wax nag soxna Assu Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag muy ku ñuy wax soxna ma jigéen mbeng mook soxna ma jigéen mbeng itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mëneen cee ràññee nag Ahmadou Bamba Mbàkke sëriñ Ibrahima Mbàkke di kim faye maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak sëriñ Habibullahi Mbàkke di kim faye sëriñ Balla Coro rakkam yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna Faati Isa Jéey mook soxna Faati Isa Jéey itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mënoon cee ràññee nag soxna Indu Mbàkke Sëriñ Omar Mbàkke ak soxna Xadi Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag muy ku ñu wax nag soxna Faati Njaay Ali Géey mook soxna Faati Njaay Ali Géey itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Sukkayna Mbàkke Sëriñ Abdourahman Mbàkke Sëriñ Abdourahim Mbàkke ak soxna Mariyatu Mbàkke Sëriñ Abdourahman ak Sëriñ Abdourahim mii ay seex lañ woon yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Ayda Si mook soxna Ayda Si itam na amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Roxayatu Mbàkke soxna Kumba Tayba Mbàkke ñu gën a xam nag soxna Aïcha yoraatoon na beneen soxna nag mu ku wax soxna Faati Njaay neene mu soxna Faati Njaay neene nag amoon nañ ak njaboot ñu mënoon coo ràññee soxna Kumba Tayba ak soxna Maam Bintu Mbàkke soxna yi nag la dëppoo njaboot yi itam nag la ci am ngir xamale leen nag njabootu sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag ñoom ñooy ñan doom ji nag na soxna Sukayna Mbacke ma mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Fall Debbo nag lañ ko joxoon sëriñ Ibrahima Fall Debbo mi doomu soxna Debbo Fall la soxna Debbo Fall doomu soxna Thioro Diop la mook soxna na Mbacke nag am nañ nag am njabooto ñu mën cee ràññee nag maam Bounama Fall sëriñ Abibulahi Fall ak soxna Ndey Debbo Fall ginnaaw sëriñ Ibrahima Fall bopp lañ ko jox nag sëriñ Mouhamadou Lamine Bass moom soxna Soukeyna Mbacké na sëriñ Mouhamadou Lamine Bass na am nañ nag am njabooto ñu mën cee ràññee nag soxna Maymunatu Bass soxna Haysatu Bass sëriñ Abdoul Aziz Bass ak ku ñuy wax nag soxna Ummi Bass doom ji ñuy wax soxna Kumba Tayba Mbacké bi ma matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ Fara Diouf nag lañ ko joxoon benn bant yi nag lañ am muy soxna Njaañu Diouf ko sëriñ Fara Diouf moo nekkoon nag waajuru Zak Diouf nag mi ñëpp xam doom bi ñuy wax soxna Kumba Tayba Mbàkke nag mu ndaw nag lañ ko joxoon benn bant nag la fa am muy ku ñu wax nag sëriñ Bàcci Lo doom ji nag di soxna Bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Ahmadu Mbay nag lañ ko joxoon mook sëriñ Ahmadu Mbay itam nag benn bant rek lañ am muy ku ñuy wax nag sëriñ Omar Mbay ginnaaw foofu nag lañ ko joxaat ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Njaay ñu mën caa ràññee nag soxna Aminta Njaay soxna maam ñaaña Njaay soxna maam Ngóone Njaay soxna Njoora Njaay sëriñ Muhammadu Mustafa Njaay soxna Ndey Kumba Faal Yelli Njaay ginnaaw sëriñ Abdoulahi Njaay moom soxna Bintu Mbàkke sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke moom Seex Mandumbe Mbàkke nag lañ ko jébbalaatoon waaye nag mook sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke nag amuñu nag ak njabootu doom ji ñuy wax nag soxna Indu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Sàll nag lañ ko joxoon benn bant nag lañ am muy sëriñ Amsatu Sàll ginnaaw sëriñ Moodu Sàll nag lañ ko jébbal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke mook Cheikh Mamadou Lamine Bara itam nag am nañ ak njabooto ñu mën cee ràññee nag sëriñ Amar Fall Mbacke soxna Sukayna Mbacke Baara ak sëriñ Sidi Mbacke Baara bu Ndar geneen njaboot gu jigéen nag duñ tudd ñenn ñi nag biñ demee kër nag lañ génn àdduna nag te boobu ñu fi njaboot ñenn ñi nag ci seen ñaar jàpp fukki at ak ñett nag ci lañ génn àdduna ñu ko mel ne soxna Xadi Mbacke Maam Binta Mbacke soxna Mariatu Mbacke Xadi Mbacke ak soxna Astu Mbacke doomam ji a wuutu doomam ji ñuy wax sëriñ Ahmadou Bamba Mbàkke moo nekkoon tim ñaareelu xalifaam doom ji ñuy wax sëriñ Omar Mbàkke sëriñ Omar Mbàkke mi sax moo njëkk a nekk nag ab député ci ku sant Mbàkke doom ji nag ñuy wax nag Abdourahman ak Abdourahim ñoom ñaar nag ay seex lañ woon bis bi mu demee nag ba di leen jébbal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag ci njaareem guddi gi ñu waree dem njaareem nag jógee Ndar la Abdourahman nag faatu mu jël Abdourahim sëriñ Touba nag jëloon sëriñ Abdourahim mii jébbal ko nag sëriñ Mbacke Bousso ci loxoy sëriñ Mbacke Bousso nag la génne àdduna mi ngi gédee itam nag ñu denc doom ji ñuy wax Ibrahima moom la tudde woon maam Cerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal baaw doom ji ñuy wax nag Abibullahi Mbacke moom la tudde woon rakkam sëriñ Balla Coro Mbacke lii nag mooy njabootu sëriñ bi mooy lenn kim nag ci sëti sëriñ Cheikh Coro Mbacke mu wii nag des ndar di jàng nag ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ci atum 1924 sëriñ Cheikh Coro Mbacke fekk na nit ñi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu nag di ndar gee ci ndigal nag mu ngi ko na woon nag jële ko nag ci magam di sëriñ Tuuba Seexul Xadiim mi ngi génn àdduna nag ci weeru tamxarit ci atum 1343 nag ci gàddaay gi weeru tamxarit ci atum 1343 nag ci gàddaay gi dëppoo gitim nag mu nekk nag ci weeru août ci atum 1924 ci mois de août ci atum 19 1924 dëkk boobu mu nekkoon nag di ndar géej ci kër gi amoon ndar nag ci avenue maître Babacar Seye ci kër boobu nag la génnee adduna ñu yëgal ko nag magam sëriñ Touba Cheikhul Khadim booba itam nag magam sëriñ Touba Cheikhul Khadim mi ngi ci dëkk bii nag di njaareem sëriñ Touba Cheikhul Khadim itam nag moo yabal sëriñ Mbacke Bousso ngir mu dem ndar mu àndoon ak sëriñ Ngam Abdourahmane Lo maam Cheikh Anta Mbacke sëriñ Balla Coro Mbacke sëriñ Balla Bousso sëriñ Ousmane Bousso ak ci armeeli ceem yi nekk itam nag dëkk boobu nag di ndar ci wetu Seex Sàmba Jaara Mbay ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1924 ba ci atum 1976 sëriñ Muudu Seex Mbay nag muy njëkk nekk nag Fall ñaareelu xalifa Serigne Cheikh Thioro Mbacke ci atum 1976 la ba ci atum 1993 di Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ñu gën koo xam nag ci Serigne Mbacke liñ tudde nag doomu Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët yi nag tàmbalee wuutu nag seen maam ji sët bi njëkk a wuutu maamam mooy Serigne Cheikh Rokhaya Mbacke ibnu Serigne Modou Cheikh Mbacke ibnu Serigne Cheikh Thioro Mbacke moo fi toog nag ci atum 1993 ba ci atum 1996 ñaareelu sët nag bi wuutu maam maamam di ñeenteelu xalifa sëriñ cheikh coro mbàkke mooy sëriñ moodu moustapha mbàkke moom sëriñ moodu cheikh mbàkke moom sëriñ cheikh coro mbàkke moo fi toog nag ci atum 1996 ba ci atum 2006 ñetteelu sët nag bu wuutu maamam di juróomeelu xalifa nag sëriñ cheikh coro mbàkke mooy sëriñ cheikh coro mbàkke moom sëriñ cheikh ahmadou bamba mbàkke moom sëriñ cheikh coro mbàkke moo fi toog nag ci atum 2006 nag ba nëgëni ñi koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mboolem nag ñu mu séqal sëriñ Cheikh Thioro Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggam njabootam gi nag jàpp na ñetti fan nag ci weeru septembre di dajee nag ci kër boobu mu génnoon àdduna nekk tim ci avenue maître Babacar Seye di kër soxna Indu Mbacke fa la ñuy amale nag ab ziar jagleel ko nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke am na beneen bis nag bu ay sëtam nag di màggal nag ci Touba Guédé di ñetti fani koor gi di bis bi magam sëriñ Touba Cheikhoul Khadim ñëwoon Louga te amoon fa ñetti fan la daloon nag këram ñaari njabootam jàpp nag di ko ci fàttaliku ñuy ñaan ca rakk sëriñ Tuuba Seexul Xadim ba doomu Mamor Anta Sali Mbàkke ba ka Mamor Anta Sali Mbàkke tudde woon Cheikh Mouhamed Al Khalifa ñu gën ko xam ci sëriñ Cheikh moom soxna Coro Jóob yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñuy tim nag ci barkeem li di jafe-jafe rew mi tim nag yàlla nañ ko suñ borom saafara ki daraja yi Mbàkke ak Mbusoobe amiin ak Mbusoobe amiin ak Mbusoobe amiin ak Mbusoobe